jërë ngeen jëf yéen ñuy topp seen seen bi di DBT TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi Moyen-Orient bi e sunu jàngatey nag dañ koy jagleel yu Afghalan di ministre de la défense bu Israël DBT TV nag di samp ab laaj ci ba xam yu Afghalan dafa faatu wala faatuwul ndax depuis ba Iran songe Israël bombardé benn base militaire boo xam ne dañoo waxoon ne da caa dee boobaak léegi kenn gisu ko mu génn te bu premier ministre Benjamin Netanyahu daan wax moom moo daan nekk ci wetam te ndaje yu am solo yi nga xam ne dafa daan dem ànd ak Benyamin Netanyahu keneen moo fay dem léegi te dañoo gis ne nag dinañ gis daal muy tiwite waaye nag tiwit ba mën naa am keneen moo dugg ci compte di tiwite te tamit loo xam ne da daan xew ci armée bi moom moo daan génn di ko wax waaye depuis booba ay photom la ñuy gis muy génn te photo ya am na ci yoo xam ne daan na génn DBT TV nag dafa jàpp ne moom dafa faatu ba ñu gis muy génnaat yu afgalan nag moom bu faatoo dina neex ci xolu jullit ñi ndax moom dafa nekkoon koo xam ne dafa bon lool soxor ba mu daal di feeñ ci kanam gi dañuy dem ca Liban Hezbollah ñoom ñooy xam ne ne sànni nañ ay misil ca bu nekk ca banlieue bu Tel Aviv capitalu Israël média bu Israël ñoom ñooy xam ne ne lépp loo xamante ni dafa aju ci wàllum dem ak dikk ca seen aéroport ba nga xam ne moo gën a mag ca seen dëkk ba ñu koy wax Matar Ben Gorio lépp nag dakkal nañ ko ndax dañ fa déclaré ay d'état d'urgence ndax misil ya nga xam ne ma ngi fay dugg ba tey ci xibaar yi canal 12 moom mooy xamle ne drone bi nga xam ne dafa daroon ca kër Benyamin Netanyahu nekk ca Xisaariya nee na nag fa nga xam ne fa la explosé mooy fa tolloog feneen ba nga xam ne ca néeg ba foofee la Benyamin Netanyahu di tëdd Israeliyon di ab journal bu nekk ca Israël neen na lu weesu un million ca waa Israël ya nga xam ne dañoo dëkkee ci seen bët gànnaar ba fa féeteeg Liban jamono bi nag dañoo daw seeni bo seen barabu daw làqukaay ya mi ngi xam le ne nag mbir ya gën naa tarati ndax yëngu-yëngu yu bari ya ñu dégg ci seen dëkk yi ñuy wax naxaru ay tamit fa nga xam ne fa la ñuy wax anka ak baliya rawatina seen dëkk bi di fa ak fa nga xam ne mooy golf ba fa nekk waaye itamit seen base militaire ba nga xam ne mu nga tudd Ramatafit DBT TV ci xibaar yi Moyen-Orient bi rajo bi nga xam ne mooy wax ci armée bu Israël nee na seddu nañ ay doron yoo xam ne dañu doon dugg fa nga xam ne mooy Jalil Ayfa ak Karmal waaye nag nee seen armée bi def nañ seen kéemtalaay kàttan ngir daal di koy gàllankoor ba am na ci yoo xam ne daal di nañ koy jàpp waaye am na ci yoo xam ne da leen a rëcc ba tax mu daal di waral ak tiitaange gu rëy ca Israël. Hezbollah ñoom ñooy xam ne songu nañ ay doron ci base militaire Ilyakim nekk ca bët saalumu Ayfa nee nañ na fa nga xam ne fa lañ bëggoon mu àgg fa fa la àgg Israël ca ñi faat am na keneen koo xam ne faatati nañ ko moom mi nga xam ne moom lañ waroon na toftal ci ki nga xam ne moo jiite woon bataillon 9308 ña nga doon xeexee nag fa nga xam ne muy bët saalum bu Liban ba tax na hôpital bi di wax bi ñuy wax Moustapha Sayfi Sayif moom nag nekk fa nga xam ne mooy safat ñooy xam ne ni am na lu toll ci fukki soldat ak ñeent yoo xam ne ni dañoo jële ay gaañu gaañu ca Liban dañu leen eh, delloo si kon nag li mu ña nga xam ne ñoom la Israël faatule ci geer bi duñu ko wax waaye nag bu guerre bi jeexee si lañ xam ñoom lu ñu xam ne eh, moom lañ doon daj armée bu israel ñooy xamle ne ki nga xam ne mooy xaasim safiyuddin ñu ngi ko faatoon ci ab bombardement boo xamante ni ña ngi ko doon amal ca banlieue bu sud Beyrouth ci ci toll nag ci ñetti semaine ci ginnaaw nee na nag Xaasim Safiyatu Diin moom mi nga xam ne nag moom lañ waajaloon mu daal di wuti ki nga xam ne mooy Asan Nasrallah ginnaaw ba mu faatoo ñu daal di jàll ci ki nga xam ne mooy Ihsan Daqsa nekk ab jullit boo xam ne mu nga bokkoon ci jullit ci palestinien yi nga xam ne dañoo nekk ci biir Israël tey nag lañ ko doon rob ay mbokkam doon ko jullee ak a ñaanal waaye nag moom mii lu mu faat ci ay askanu Palestine kenn xamul lim ba na mu toll te jëf ju bon ci nga xam ne doon dañ ko ko defloo waroon naa tax mu daal di ba bàyyi fa nga xam ne ca armée ba nga xam ne fa la nekkoon ndax képp koo xamante ni yaa ngi ànd ak ñu bon ñi di jëf seen jëf ju bon ñi yaa ngi ñoom yéen a yem ah, kon mbokki yi lii leen indiloon suñuy xibaar di leen jox dig daje ba suba jàmm di wax ngeen abonné ci seen bi te bës cloche de notification